loolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ko bëgg ay mbokkam xam nga nitu yalla ak Serigne dafa bëggul tasanja ci Babacar c'est Madame Fonseca je suis la présidente de la com de la communauté chrétienne de la Padoa Builders enfin man ci sama gis su bop lay wax de toutes les manières ayewuñu ayewuñu ki euh jàngu yi ak jàkka ay ak yu ayewuñu ko mun nañu jot suñu sacrement mun nañu dem janguba luñu ayé moy aye dajale ci ben kër ci ben salle fo xamné ne nit yi dañuy bare bare bare bare parce que virus bi fofu lay propagé wu bu jëluñu geste barrière budé dee jëluñu mesure mesure euh, les mesures de sécurité qu'il faut xam fofu moy moy moy xawa dangereux mais sinon ayow même suñu suñu monseigneur ko xamné moy jité Dakar daf ñu expliquer ne catholique yi téréw ñu leen benn sacrement mun ngeen jël seen sacrement lu ñu lu leen di ñaan ngeen respecter geste barrière bi donc daje bu bu bare bi moom la ñu bëgg a mais taxul nga mun a dem jàngu taxul nga mun a def sa fête sa biir kër sa biir kër ak sa waajur loolu état bi ayewu ko ayewu ko. waaw boobu c'était kii la woon samedi ba la woon parce que da jàngu yëpp moo def benn bés ñoo def communion donc cette année nous l'avons ko fait parce qu'à à cause de Kibé. nous nag xam comprendre où bu parce que je crois que c'était à partir de la nuit parce que man sama sët man sama sept bopp c'est un samedi waaye bëccëg le sëy 11h Nous sommes toute la journée Nous sommes toute la journée jusqu'à 20h 20h nous tas mais est-ce que est-ce mais kenn kenn sonnaluñu loolu c'est contradictoire loolu c'est contradictoire effectivement car rapide bi ak tata yi dafay daje dafay fees del même si bu ñu ko doon def bu comme bu njëkk ba xam nga bu njëkk ba dañu defoon ñëpp amul kenn ku taxaw ñëpp a toog am sa masque ñëpp am sa qui, dina dina doon baax mais là effectivement c'est contradictoire ak li ñu wax parce que foofu nit yi dañu daje te virus bi bu fa nekkee mu nga fa man suma mbokku chrétien yi mu dama leen di wax nañu dégg suñu jiit

té ñun dañoo jël sunu lépp def ko si loo xamante ji wàllum événementiel mu ñuy may xaalis dañu liggéeyal xaalis kon nag Macky Sall tey jii bu demee ba ñëw ne dañuy indi affaire de deuxième vague na xoolaat bu baax lu muy def mu xalaat bu baax nu mu koy géré parce que ñun ay jeunes leen te xaaruñu nguur dañuy liggéey ah, dañuy liggéey jël sunu xaalis yëpp investir ko si matériel pour liggéey xaaruñu parce que sàcc ñoo dugg ñu si gaal dem ñu fenn waaw ñu bàyyi loolu xel quoi.

le kii comme encore manifestation dégg nga mais les catholiques dañoo respecté kii bi ba defuñu Noël demuñu Popenguine en tout cas defuñu benn fête toog di xaar ba amul sax un mois bu ñu génnee yëf yi ñi ñuy commencé di dem mees di def manifestation ñu jóg ñu naan loolu corona dafa dafa kiyaat nañu ñi bëggoon ñi ñuy toogaat te loolu mënul nekk nag moom parce que Touba amoon na fi boobu lañu bàyyi yëpp pour lépp commencer à zéro n'est-ce pas kon ku Touba bu mu ñëwee mu am ñi am zéro cas c'est pas possible ça c'est louche c'est très louche parce que rassemblement moo fa ne moo fa nekkoon te defe naa corona fépp la ne comme liñ ko waxee te lu lu ñu munee ne ko Touba mënul am dara duñu dañoo bëgg a wax ni peut-être que ñoom Mohamed dafa gën a fort Jésus te loolu mënul nekk nag c'est pas possible parce que bu ñu gisee bu ñu bu ñu xoolee ba xool Mohamed Jésus moo ko jiitu fii moo Jésus moo ko jiitu si religion bi n'est-ce pas Et donc l'élève ne peut pas surpasser le maître quel que soit Alpha Jésus est le maître de de Mohamed ça c'est moi qui le dis n'est-ce pas donc nous ñi dem ensemble comme nous, ñi nu ensemble Nous ñu defee Nous xaw gouvernement si nous rassemblement nous pour ñi dem def voie nous nañu nek dans la dans dans la même voie ñoom ah, bu ñu nekkee benn ñun ñëpp dinañ dinañ mun a nekk benn mais mënuñoo toog entre musulman et catholique ba pare ñi ñoom nekk seen diggante bugg leen a jaxase te loolu man bugguma ko. mais est-ce que jaxase la. jaxase la si parce que man pour man non non non mais ñoom ñoo ko bëgg a def loolu mhm. n'est-ce pas ñoom ñoo ko bëgg a def loolu si kaw ñële bu ñu buggee def ñu bàyyi mu dem te ñii bu ñu buggee def ñi indi conflit donc loo foofu boo ko defee ñaari nit danga leen di boole dégg nga parce que quel que soit alpha kii bu demee ba si yàgg day gis boppam. déedéet man waxuma ne jullit yi ñoo ko def de loolu moom ko et jullit yi ñoom ils n'y pour rien parce que jullit yu bëri sax dañuy taxaw di naan lii ñuy def nii c'est pas normal donc jullit yi defuñu ñoom laa wax dañu bëgg a nekk entre ñaari religion yi te bu ñu defee noonu. am na nga xam ne ñu mel ni man seen esprit eggul fii dul kii moo def bu ñu révolté kële tamit dina révolté te dina indi conflit loolu mooy sama gis-gis. Euh, ça va bien sëñ bi. Rosalie Camara ah man deuxième vague moom sincèrement gëmuma ko pour man politique la rek première vague moom gëmoon nañ ko moom jël suñu mesure de barrière yëpp mais deuxième vague vraiment gëmuma ko. Euh, pour mon politique la rek état bu mu parce que yàgg na cas yi bëriwul loon nit yi jël seen mesure yep nu waré waree say né qu'on lutte avec corona ñun tamit ñu lutter avec corona jusqu'à ce que ñu am li tay mu xey yokku kay vraiment mënuma comprendre ah metti rek metti rek parce que depuis février la mëna wax église dañ ko tëjoon ba novembre bi lañ ko tijji voilà comme gisoon nañu corona bi bese na woon bu baax Sénégal ñu jékki saay augmenté waat chiffres yi comme si dañ ñu bëgg interdire pour ñu fêter suñu fête navité navité Jésus bi ak euh, fin d'année bi Saint-Sylvestre bi waaw ñun nag vraiment duñ ko nangu nag parce que trop c'est trop yàgg nañu muñ di bàyyi mu jàll mais bi paa moom duñu nangu moom dañoo taxaw pour xeex. ah métti rek la comme ni ma la ko waxee rek lu ñaan état bi rek mu changer mesure de barrière am bàyyi ba après fête passé parce que dafa metti nga def sa financement def sa programme lepp ba mu tegu ba lépp sotti après mu ñëw bëgg changer affaire yi. Adja Grand ça va naka mu. oui ça va alhamdulilah. mën nga ñu jox tur bi ak sant bi. waaw man Ousmane Ngom laa tudd gars yi ma woowee Ouz si milieu art bi quoi. waaw Ousmane léegi deuxième vague bi ñu wax ni yow Ousmane nan nga ko gisee. waaw deuxième vague bu ñuy wax moom laal na ñëpp laal na artiste, yi laal na commerçant yi laal na ñëpp vraiment surtout ñun artiste yi quoi parce que dugal nañu ay avance ay événement. yu mag dugal nañu plus de ay 700000 si ay avance dañ ko mujj a perte. parce que gars yi koo dem na la delloo ma mu ne la non non ce jour moo faussé mënuñ si dara quoi bon wax gouvernement am ñu jàpp si bàyyi ñoom décembre bi yàlla fay parce que décembre la am décembre mooy mois commercial mooy mois artiste mooy mois lépp kon nañ si jàpp bàyyi ñoom suñu décembre incha loolu la lu ma doon wax. soppe Serigne Babacar ay mbokkam xam nga nitu yàlla ak ko sëriñ dafa bokkul tas daca sëñ Babacar